ñu ngi am mbégte ak kontante ci xéewal gi nga xamante ni moom lañu yàlla subhanahu wa taala defal ba ñu mën a ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quran bi nga xamante ni nii moom la ñu amal fii ci la maison du coran di ànd ak liggéey bi Reflect Studio nga xamante ni dañuy yëngatu lépp lu jëm ci wàllu caméra ak photo ak audiovisuel fépp fu ngeen leen soxla rek incha allah rabbi ñu fekk leen fa mbokk yi suñu jotaay bi weesu ñu ngi nekkoon ak yéen ci suuratu shura muy saar wi nga xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala moom la tudde diisoo waxtaan toog sottante xalaat bokk na ca màndarga yi nga xamante ne ni yàlla préparel na ko gaa yu baax yi ñoo xamante ne ni dañuy diisoo di waxtaan loolu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 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل مكي يلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الله أكبر بلا ما في رئابي bu ngeen seetloo bokk na ci màndarga yi yàlla njëkkoon a wax nee na bokk na ci ñi may fay àjjana gaa yi nga xamante ni nii bu ñu meree dañuy baale waaw mu ñëwaat tuuti daal ni bokk na it ba tey ci ñi may faye àjjana ñoo xamante ne nii buñ leen tooñee dañuy fayu est-ce que wuute amul foofu déedéet wuute amul walladina ida asaabahumul baxyu hum yantasiruun mooy ñi nga xamante ne nii boo leen laalalee yi may bëgg a wax moom amul baale lu mel ni nit nga laalal ko diineem mbaa nga laalal ko ab yonentam bi mu gëm mbaa ngay foowe fowe alquraanul karim mbaa ngay foowe aw askanam di ko tuumaal di ko tuumaal lu mel ni nga koy jéem a tam ngeen baal ma ci baat bi mbaa di jéem a taqal deram moo xam ku góor la moo xam jigéen la di ko taqal ci lu mu deful lu mel ni ki njaaloo wala lu mel ni ki sàcc walla wax joo xamante ni mën naa tasum réew nga tuumaal ko ko yàlla subhanahu wa taala nee na yooyu moom ku la ko laalal na nga jub daa di leeral bu jaree fayu nga fayu looloo waral fan yële ba benn waay jógee laal yonent ya bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis wa réew mi di yëngatu réew yu bari yengatu parce que ay bi mom motax tax yi su suñu réew mii ñu ngi wax wax yo xamanteni ni wala di fi jëf-jëf yo xamanteni ni jarna yengatu bis bu gudde guddeeg bëccëg suba ngoon lolo waral ba kep ku wuyo kilifa diide ci réew mi ñu koy wo xamal ko niko yalla subhanahu wa taala mu koy wo di ko xamal ni am na loo xamante ni nii kenn waru koo seetaan lu mel ni diine lislaam kenn warta seetaan ñu koy fowe xoolal guddi yi ñu tollu tey am na mbooloo yu fi génn di woote wat ak yonent di ko jànge ci seenu làkk mbir yooyu yépp yu ñu war a wax la donte ka nag réew mi nekk na réew moo xamante ni nii ñoom ñi koy def nii tey njëkkee wuñu ko su ko defee loolu dafay gën a yokku ak yàqute ci am réew gis nga islam dafa leer diine yi lislaam dafa nekk diina ju leer alquran dafa leer yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw na dem na bàyyil nañu fi diina ju leer mbir yooyu képp ku ko laal dañoo war a wax walladina ida asaabahum albaxyu wa hum yantasiruun yàlla nee na wa jazaau sayiatin sayiatun jëf ju bon moom képp ku ko def dañu ko war a faj wa jazaau sayiatin sayiatun mithluha yàlla nee na ku la tooñ bu la neexee nga fayu sooy fayu nag nga fayu ca na mun a tooñ bul ëppal moo tax yàlla subhanahu wa taala daal di continuer nag daal di wax ni ah fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah innahu la yuhibbu zalimin yàlla subhanahu wa taala nee na ba tey ci suratu shura boo baalee nag daal di jéggale daal di jéllale daal man day fayuma damay muñ ah yàlla subhanahu wa taala ne lo lu bax la way ma ngi xam leni dal mom bëgguma toñ ben yoon toñ mom bëgguma ko waaw yàlla yi dal di continue dal di am leneen lu mu leralat te mom mom may lan wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ulaika lahum adabun alim yàlla subhanahu wa taala nee na képp ku ñu tooñ mu fayu kooka bu ko kenn wax dara dañ koo tooñ mu fayu bu fekkee am na ku ñuy balaame bu fekkee am na ku ñuy wax na doon ki tooñ contraire bi moo nekk senegal senegal dañ lay tooñ nga fayu nit ñi yow la ñuy attaqué yow la ñuy song wax kii dafa bon kii dafa na fekk ni moom la togn ndaysan kon mbokk lolou loolu nañ ci bayyi xel bu baakha a baax yalla nee na ci alquran kep ku ñu togn mu fayyu ko bu ko kenn balaame kooku bu ko kenn wax dara ki ñu wara tey ci ab loxom wax ak mom moy ka nga xamanteni ni nii mo moo bu fekke sa mbokk la nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee sa mbokk nang ko jappale mo xam dafa togn mo xam dañu ko togn bi mu waxee loolu saxaaba yi daan di ko waa yonent bi ñun day xam nañ suñu mbokk bu ñu ko tooñee ni koy jàppalee mooy dañu dem taxaw ci wetam waaye moom bu tooñee naka lañ koy jàppalee yonent bi daal di ngeen jàpp ci loxoom ni ko yaa tooñ donte ko sa mbokk la nga ni ko yaa tooñ loolu moom mooy defar société bi loolu moom mooy defar kër yi loolu moom mooy defar koñ bi loolu moom mooy defar fa ñuy liggéeyee kon mbokk yi aaya yii ak yi ñu leeraloon ca suñu jotaay wala weesu moy yi nga xamanteni ni mom la yalla subhanahu wa taala wax fi ci suratu shura ni man ko dencal ga yi nga xamanteni ni ñom ñoma gem ba pare lu ci yalla subhanahu wa taala ne dina leen ko fayé ndax lepp lu ngeen mëna am ci aduna ak lu mu bari bari bari bari bis dina ñew mu jeex mba yow nga dem ba ko fi te yawmal qiyam nak lama lay fayé du jeex te do dem diko fa ba wa abqa ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla nee na ñaar ñooñu laa ko dencal gaa yi ma gëm ak gaa yi nga xam dañoo jël seen mbir yépp daa di koy dénk yàlla subhaanahu wa taala kon mbokk yi suratu shura mu ngi noonu mbir yooyu la fa yàlla subhaanahu wa taala wax dañ ko toppaat déglu ko jëm koo jëfe su ko defee ñu am ndam fii ci àdduna am ndam fa nga xamante ne nii moom moo di àllaaxira yal nañu yàlla subhaanahu wa taala defal dégg ak topp insha allah tabaraka wa taala suñ jotaay bii di ñëw dinañ ñëwaat ak yéen ci beneen saar ci yeneen jàngat yoo xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala wax nañu ko ci alquranul karim di jaajëfalaat ñi ñu àndaloon ci liggéey bi di jiital Reflex Studio nga xamante ne nii ñoom lépp lu jëm ci wàllu photo ak euh, audiovisuel ak lépp loo xamante ni la doomu aadama soxla na ko ci jumtuwaayu ñoom ñu ngi fi incha allah rabbi yàlla na leen yàlla jàppale jëmale leen ci kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa